def li nga xamante ne bii mooy euh, réunion CD préparatoire Grand euh, Magal de comme ni ngeen ko xamee waxtu màggal gi daanaka jot na te réunion CD bi mooy réunion bi nga xamante bii mooy réunion bu jiitu ginnaaw moom dina am CDD bu préfet bi jiite dina am CRD bu gouverneur bi jiite waaye ministre bi si wàllu boppam ministre de l' intérieur dina am réunion bu mu jiitee balaa ñoo def réunion d' évaluation fii ci Touba donc euh, ñu jàppoon nag waxtu woote bi moom jot na daanaka ndax di des ci màggal bi daanaka matul ñetti weer ñu woote woon fii ànd ak comité d' organisation bi nga xamante ne bii ci présidence su Serigne Bass donc sëñ Ousmane Mbacke Gaye Fatma nekk coordonnateur bi. daje fi ak euh, service étatique yi ñu sottante ay xalaat ci li nga xamante ne bi état war na ko jàpp comme ni mu ko daan defee pour que organisation màggal Touba édition 2021 nekk organisation bu mucc ay loolu lañ ci doon waxtaanee ñu xam le ne màggal gi ren aussi dafa nekk ci contexte boo xamante ni bi contexte bu particulier la waaye bu ñu xam la aussi ndax euh, daanaka ci contexte bu mel nii la ñu defee woon màggalu 2020 euh, donc nag koo defaat ci 2021 bi muy contexte Covid donc euh, nekk contexte aussi hivernage moo tax comme ni mu ko doonee woon daaw donc li nga xamante ni bii mooy wér-gu-yaram bi dafay. occupé waat même place bi mu occupé woon que daaw ndax jamono ji ñu nga xamante ne bi ñu ngi woote CLD bi daanaka Sénégal mi ngi ci troisième vague kon nag matukaay yi nga xamante ne bi jëloon nañu ko daaw donc dañ koy jëlaat ba mu mat sëkk wala sax ñu dolli di ñaan yàlla rek euh, balaa ñoo àgg ci màggal gi la nga xamante ne bii moo daloon daaw dalaat ñu maanaam ñu seetlu ay cas yu bese ci anam bu gën a euh, raw sax suñu njort am na ci yaakaar bu baax ndax nag euh, ñu jàpp nañ ne ki nga xamante ni bi mooy tax ñu daje fi di waajal euh, bésam boobule déggoo nag suñu borom déggoo boo xamante ni bi jàpp nañ ne dëkkam bi maanaam li koy aar moom xëy na mën na bay jógee si ñun waaye ci moom lay jógee ak si suñu borom kon nag loolu moo tax ñu daje woon fii euh, on a passé en revue service maanaam domaine yëpp ginnaaw domaine santé bi waxtaan nañu ci lépp loo xamante ni bi ci wàllu sécurité la waxtaan nañu tam aussi ci lépp loo xamante ni bi ci wàllu ndox la ndox nga xamante ni bi lu soxal euh, Touba la ren nag ñuy wax ne am na ay jéego yoo xamante bi daanaka bi ñu génnee màggal yi ba fii ñuy wax ak ci la nekkoon donc di am yaakaar rek jafe-jafe yi nga xamante ne bi amoon nañ ko daaw dina xaw a waaye xam nañu itam ne màggal gi li muy indi ci mbooloo ndax jàpp nañ ne moom mooy deuxième événement religieux bu gën a mag après aj bi xam nañu ne faaw mu am ay jafe-jafe ndox mënul ñàkk waaye sunu taxawaay mooy wàññi ba ni ko askan bi doon yëgee mu gën a wàññeeku. am nañ ci yaakaar bu baax waxtaan nañu ci wàllu assenisement ak energie lépp loo xamante ni bi tamit ci wàllu jënd ak njaay bi la wàllu xale yi wàllu matt mi wàllu élevage nga xamante ne bi jàpp nañ ne moom tam domaine bu am solo la ndax màggal gi kat ak ay bernde ñoo ànd wax na bi sanq lim bi lim bi mooy wane ne màggalu Touba wax dëgg fa yàlla comme ni ma ko waxee woon ca njëlbeen waxuma la sax dimension religieuse bi waaye dafay impacter positivement ci économie Sénégal donc jàpp nañu ne bépp activité boo xamante ne bi nit mi ngi ciy yëngu fii Sénégal bu màggal bi jotee li nga ciy yëgee ci bopp bokkut ak bu màggal ñëwul donc yoon la woon que état bi nga xamante ne bi moo fi nekk nekkal fi askan bi yépp bu ñuy waajal lu mel nii mu dugal ci loxoom comme ni mu ko daan dugalee di am yaakaar rek que li nga xamante ne bii nas nañ ko fi dinañ ko gën a consolider ci CDD bi gën ko consolider ci CRD bi ba dem ci kanam ministre de l'intérieur donc ñun jàpp nañu ne à partir d'aujourd'hui liggéey bi pour màggal bi commencé na donc li ñuy def mooy bépp engagement boo xamante ne bii service yi jël nañ ko ñu koy suivre au jour le jour pour que bu ñu demee ba ca euh, bés ba la nga xamante ne bii état. donc euh, jëloon na ko comme engagement mu mën ko respecter à cent pour cent di ziar ak a ñaanal Serigne Mountakha Mbacké yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér di lu taxawaayam ci wetu état du Sénégal ndax ñun jàpp nañu ne moom réeroowul ak état ci benn fànn ndax lépp loo xamante ne bii ñun yëkkati nañu ko ci wàllu liggéey bi moom daanaka moom moo ñu si gën a jàppale te li ngeen mujj seetlu rek mooy bi fi mbas mi jógee ba léegi daanaka moom euh, geste barrière yi daf koy respecté li nga xamante ni bi moom la ko état santaane euh, li des rek mooy ñun la war nañu ko def euh, waaye jàpp nañ ne borom bés bi dina wattu bisam ba incha rabbi nit ñi dina ñëw màggal si ci jàmm dellu seen kër ci jàmm te benn tolof tolof du leen fi dal te loolu amoon nañ ko daaw waaye ren leen ko gën a am yaakaar ndax jàpp nañ ne comme ni ma ko waxee dëkk bi ci lu nëbb comme si lu feeñ dafa am borom ndax ci lu nëbb xëñ na man dama sore ñoom sëñ Ousmane ñoo ci gën a yeey waaye ci lu feeñ daanaka li ñuy wax Touba moom kër la ndax fàggu na fàggu boo xamante ne bii képp kuy borom kër moom nga fàggu ci wàllu moomeel ci wàllu titre foncier donc ci li nga xamante ne bii mooy nëbb nag ñun jàpp na ne loolu mooy jagal màggal gi te loolu xam naa ne moom moo ci ëpp pexe te incha allah rabbi nan ko daan defee dina ko defee incha allah li nga xamante ne bii mooy mbas mi te jamono ji ñuy wax ñu toll ci troisième vague li ñu seetlu mooy fii ci Touba. ñaari vaccin am na fi te ñaari vaccin yooyu li ñu seetlu mooy nit ñi liñ ko waree jëlee jëlee wuñu ko dañu jàpp ne li nga xamante ne bii moo fi mën a jëlee mbas mi mooy nit ñi ñu dem vacciné wu moo tax ñu ngi ñaax suñu mbokk yi nga xamante ne bii ñoo bokk Touba nañu dem jege ji hôpitaux yi jege ji centre de yi jege ji poste de santé yi pour que ñu mën a vacciné wu ndax jàpp nañ ne épidémie bu mas a am ci àddina vaccin donc moo fi mas a dindi te yàlla suturaal nañu ba am nañu ko donc nañu fexe ba na ko yeneen dëkk yi di defee ñun aussi ñu defee ko ndax ñu ñoo war a accueillir donc te nit ki kat boo koy booy booy dalal da ngay fexe ba lépp loo xamante nit yi ay conditions yu mucc ayib la nga wax ko mën a dalal sa gan nga dalal ko te comme vaccin yi ñoom ñu ngi fi te wax dëgg fa yàlla jafewul euh, lu dul xanaa nga déplacé wu dem sa kër donc nu mu nga déplacé wu dem ci euh, poste de santé bi wala centre de santé bi laajte ñu administré la ko yaakaar naa ne li baax rek mooy sunu mbokk yi ñu dimbale ñu ba mën a dem ci structure sanitaire yooyu vacciné ndax kat vaccin bi amul lenn lenn loo xamante ne bii mën na la gën a aar ci mbas mi lu dul nga dem vacciné wu te itam nga respecter les gestes barrières muy le port systématique masque ak la distanciation sociale donc loolu laa amoon ci li may wax ci wàllu woowu maa ngi sant bu baax leen ko doon wasalaam. waaw alhamdulilah rabbil alamin ñu dellu santaat yàlla bu baax euh, di sant waa. ñu teew fii ñëpp rek ci turu Serigne Bass li xam ne mooy kilifa comité d'organisation Grand Magal Touba cant yooyu nag ñi ci jiital euh, ñi ngi ci jiital euh, euh, autorité administrative yi ak maire mi nga xam ne moo nu dalal fii waaye moom mu mel ne moom moo nekk ci dijj màggal bi sant nañ leen ci turu Sëriñ Bas di di euh, beesalaat sunu engagement di beesalaat sunu engagement bu baax sunu pas-pas ak sunu dogu ak ñi mu àndal ñëpp ci ginnaawam fas yéene ànd ak yéen màggal bi leen wax na tàllal nañ leen suñuy loxo niñ ko baaxoo woon di def waaye nag mu doon tàllal loxo gu ànd ak rafet njott gu wér a rafet njott gi li ko li ko wundu mënees na koo wax ndax dañu gis ay nit ñoo xam ne dañu yem ak ñun engagement ci jafe-jafe dëkk bi waaye ay nit yu yem ak engagement ñun ak ñun ci yitte màggal gi mu mel ne jafe-jafe dëkk bi nga xam ne saa su ne moom la dëkk bi di dund ci lu dul màggal jafe-jafe yooyu mooy continuer di gën a metti su màggal gi ñëwee kon mu mel ne saafara jafe-jafe yi balaa màggal mooy waajal màggal gi ci eh, Euh, gàllankoor yooyu loolu nag yàlla def na ñu ngi ci ànd ay nit jafe-jafe lu ci gënoon a ràññiku bokk na ci ndox bokk na ci sécurité bokk na ci électricité bokk na ci wérgu yaram bokk na ci bokk na ci yu bare bare bari yu ñu mënta lim waaye ñuy wax rek ne secteur yooyu benn bu ci ne am nañ ci ay collab ak ñoom ci ñu ko yor ay collaboration bu mat sëkk boo xam ne jàpp nañu suñ ko wéyalee ba màggal gi ñëw yàlla mën naa def lu bari dana woyof yàlla mën naa def it njàqar yu bari suñ borom teggil lu ko loolu nag lañuy ñaan loolu nag lépp ndimbalul sëriñ bi la ndax sëñ bi moo dugal kàddoom ci lu bari ci yu mel noonu ba tax na mu ñemeloo ñi ko yor waaye it ñi kilifa yi it yëg ne jaaxle gi egg na ci sëñ bi ba sëñ bi jëlal ko bopp ah sëñ Bass nag wax ne mi ngi rafet njort bu baax tey yaakaar rek ne taxawaayu daaw yi ci contexte bi dañu jàngal ren ndax ñi ngi wax troisième vague ci pandémie bi am troisième vague bi fekkente ne ñaanuñu yàlla sax mu wéy ba boobu waaye nag am nañ expérience bu ndaw ci par rapport ak daaw expérience boobu nag defe naa suñu gënee yokk sunu pas-pas yokk suñu moyen waaye gën a dëgëral suñu jokkoo ak jokkale bi jokkalante bi defe nañ ne mën naa euh, gën a euh, yokk résultats yi ñu amoon daaw te résultats yi ñu amoon ndaw nag ñëpp gis nañ ko àdduna bépp xam nañ ko waaw même presse internationale bi sax wax na ko kon loolu lu wér la lu tegu ci xam-xam la lu ñuy wax loolu nag tax na li fekk ñëwagut xamugunu nu ñu ciy doxee ak lan moo ci doon ndigal lay wéy waaye nag sunu warteef ci ndigalu sëriñ bi ci njiitul sëriñ Bas mooy xam nañ ne màggal gi dina ñëw incha allah xam nañ nit ne mu tartar dana fekk ay nit waaye xam nañ ni ay nit a koy waajal ci ñun ñoo ko war a waaj kon dañ ko waajal nañ ko daan waajale incha allah loolu daal lañ amoon ci gàttal euh, luñ doon jokk la rek ci ndigalul sëriñ bi di wax ne moom mi ngi ñaan gërëm na jataay mi ngi leen di ñaanal euh, di sàkku it jullit yëpp ñaan sàkku it sénégalais yëpp ñaan waaye rawatina murit yi te ñaan moom mooy sunu lépp moom lañu am ñaan it mën na lu ne la amoon daaw kenn mësu woon foog lu ko raw nag ci jàmm ak i ndam yàlla nañu ko yàlla defal ci dara yi Serigne Touba jërë ngeen jëf ñuy sant ñëpp du gërëm ñëpp la